asalaamaaleykum euh, mbokk auditeur rajo Futur média rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo di auditeur xalas euh, tey jii nag di àjjuma fukki fan ak euh, juróom-ñett ci weeru février atum 2022 neuf heures daal dina toptal fanweeri simili ak juróom-ñaar ci kàddu gi Cheikh Tidiane Diagne daal di fi wuutu Mamadou Mohamed Ndiaye ak itam sëñ Aba ah, waaw tey jii moom mën nañoo jàpp ni jaañ ñi ñoo uuf antenne bi au carré comme voilà Matar Diagne di passe partout a Cheikh Tidiane Diagne Euh, ci euh, machine bi eh, Abdou Thiam fa daal di féete ak euh, soxna Yacine Pouy ci digital bi gannaaw nag bu ñu leen nuyu nag paas tey jii moom dafa mel na nga dem dëkk ba de. jaajëf sama waaj dama màkk de. dama dem fa de. ah xam nga waaj bi bu mu jógee màkk yàggul. baat bi de. moo lii. Pape Diouf waaw ah, gis lu mel ni démb. sama xarit la ah oui waaw. Ah. bi mu bi mu jógee Màkka yàggul. Ah, demoon foofu umra ji. Mhm. sama gars yi nag ñu ngi dem Màkka rek. waaw ñun kan la ñuy dem sax Diagne. Pape Cheikh instant fi mu waxee Pape Cheikh nga Màkka. <laughs> ah oui waaw. non ñun dinañ dem Diagne. <laughs> kañ la ñuy dem yow maa ngi ñooy ànd. <laughs> Oh, ñooy jógeendoo ñooy demandoo ñooy safaawandoo ñooy marwandoo. maa la ko wax. lii ma jox biir Màkka ma dem ñëwaat. dañ ciy dem. waaw a dem nag. yàggul dara dañuy dem. incha la dinaa am ñu wala kii jeex na jeex na boo ñëwee dégg alaaji seex. <laughs> jeex na ah tamit alaaji alaaji seex Tidiane Diagne. <laughs> daa daa sax ànd. xaaj voilà Ablaye Diop daal dina wuutu Abdou Thiam ci machine gi. Mhm. Euh, pass xëy na sax balaa ñu jublu si sujet yi nga xamante moom la ñu am. Mhm. avec des éléments sonores daal di wax euh, ci crime bi nga xamante ni moo amoon euh, fan yële. waaw ndongo mooy bijoutier bi. Mhm. yëf yi amoon dimanche mu mel ni ki enquête bi. am na évolution parce que jot naa ko lire dans le quotidien l'observateur du jour. ak itam ci réseaux sociaux yi. voilà euh, le principal suspect moom la ñu jàpp ni. Hmm. moo ko daal di boobu. mooy Bass Thiam waaw. maa ngi nuyu sama benn sama benn xarit bu ñuy wax euh, Amina Yu. Hmm. Amina daa bëgg Youssou Ndour ba dàkkantele boo xam Amina Yu. ah yenn saa ñun Amina Maxti Amina al Maxti. bëri na ci morom nag. mais euh, Diagne. Hmm. mbir moomu. commencé na nag ci li ñuy wax naan yenn secret enquête yi mi ngi commencé di. di génn di feeñ ndànk-ndànk. parce xam nga bi ñu découvrir ndongo. premier suspect bi moo doon Bastiam. Mm-hmm. ndongo mooy ku ñu faat. waaw mm-hmm. mais comme gars yi nag amuñu woon ay éléments matériels yoo xamante ni kii nañ ko. Mm-hmm. concrétiser wuñu woon chaque fois dañuy wax ne présumé bon. présumé mën nañu présumé ah, matériel mais da ci feeñ nag li bees mooy. moom Bas. bi ko enquêteurs yi laajee def na effectivement ndongo ñëw na këram. di ko laaj xaalisam. 6 millions ba mu jox ko ko. mu dem ndongo dem. Mhm. nee na vers dix ñëwaat. gis nga doguma la parce que mhm. man démb ba mu liiree euh, quotidien yi ñu wax mhm. loolu. si la sama xel ni ña ma toogal. ma ne la waa ji daanu. parce que munoo ñëw kër jàmbur. fàtte fa sa portable ak portable nu mu taqee ci nit. nga toog ba dix-huit heures. nga ñëwaat di delluwaat ci kii alors que ba am mën nga am sa possibilité woote. woote effectivement. bu fa nekkee danañ décroché sa portable ngi nii. man si laa jàpp loolu nag moom moom loolu la wax ci kanamu enquêteurs yi. Mhm. mu na 18h ñëwaat na fa ni ko ndax bàyyi fi portable am. mu ni ko déedéet mu ni ko déedéet nee na boobu la ko gis. Mhm. ba ni ko frère di wëree et tout. Mhm. mais xam nga boo xoolee li tax boobu ba tey enquêteurs yi téye ko. ça veut am na am na lu ñu suspecté fekk na effectivement nag li li li enquête li ñu xam ci enquête bi mooy. bas ndongo ñëw na këram di ko laaj xaalisam. bi mu ñëwee dañoo jàppante ñoom ñaar. ba xeex fa. ci la ko bas. étrangle ko ba ndongo ñàkk ba kanam. Mhm. ci biir néegu bas. Mhm. ci la bas jëlee njeganaayam. Mhm. xotti ko. génne coton yi coton yi ci nekk. saañ ko ci. parce que xam nga nit boo ko boo boo ko xojee. dina am li li li ci moom. day jël draawam. muur ko laxas ko ci. génn teg ko ci biir nag génn dem. marché caaro yi bi mu dee marché caaro yi jënd fa ay sac en plastique. ñëwaat bi mu ñëwaatee. dugal ndongo nem si yàlla si saag yi. Mhm. bàyyi ba guddi. Mhm. comme ndongo mi ngi gaara otom ci mhm. bi ba guddi. mu mu sol benn capuchon. jël nem si dugg ci oto bi. di dem ak moom xam naa pour yóbbu ko fenn fu mu ko sànni. walam xawul la baax. ku mu mbëkk. loolu mooy le crime n'est jamais parfait voilà. bi mu mbëkkee ok bi mu mbëkkee kooku nag. taxawul kooku di dàqante bas dawee ba fi mu gaara oto bi noonu. mu taxaw fa wàcc daw bàyyi fa oto bi. waa ji mer. ñëw jël caabi oto bi. Ah, démonté batterie bi parce que ba muy daw jotul a ma ngoog kii ko mu jël caabi. dem këram tëdd. Mhm. sa waay dem Malibu sànni fa téléphone ndongo. Mhm. dem këram toog. mooy bas moo jël téléphone bi sànni ko. léegi nag bi coow lu jógee. Mhm. ki nga xamante ne moom moo rocce woon caabi oto ba ak batterie bi dem police def déposition am expliqué li sa sol. bi police defee perquisition kër bas. fekk nañ fi effectivement caption bu mu soloon. fekk nañ fa njaganaay bu mu bëttoon. ak trasu deret ak trasu deret yi. ñu def encore récu euh, réquisition ci Sonatel. effectivement demoon na marché Thiaroye. comme nu ñu jëndee sac en plastique yi. ba mhm. commerçant ba ko jaay entendre nañ ko. Mhm. gis nañ ni tamit dem na ba plage yu Malibu fa ñu sànni téléphone ndongo donc loolu moom la ñuy wax ay ay ay ay ay élément de preuve élément de preuve yoo xamante ni mhm. xëy na dina am yeneen mhm. yoo xam dina ko génne bu fekkee am na complice wala bu fekkee moom kese la mhm. dina ko génne mais pour l'instant da daaneel na nit gis nga téléphone ci kaw sax nga fay ko sax c'est-à-dire que dañ lay borne gis nga police Euh, ni nga koy gisee nii dafa am ay nit yu nga xamante ni sax mën nañoo bañ a doon ay policiers mais ay ingénieur la ñu ci mhm. la ñuy yëngu mhm. Mhm. police bu leen soxlaa daleen leen di recruter et facilement c'est des travaux yi nga xamante mën na la si jàpp dañu caaxaan gis nga jaañ suñu police bi ak suñu gendarmerie bii waaye buñ ko xeebee xeeb nga sa musiba xamul balaa nga koy xam nga dugg ci lu lu lu lu lu safaanu ba ñu war laa topp soobaa ngay xam commissariat central section de recherche police yi nekk Sénégal yëpp. Mhm. liggéey bi ñuy liggéey. Mhm. dañ dul wax nag ñoom. waaw ñoom du ñu wax. te xam nga gars yi la la ñu dul xam mooy euh, ñoom jàpp nañu policier mooy ko solto di rek. waaw waaye gis nga boo xoolee au moins cinquante pour cent de la police. c'est des gens en civil qui sont parmi nous. ay nuyu sama waa a fii nii ah, section de recherche. Euh, Sané. Euh. maa ngi koy ziar bu baax a baax ma nga noonu ma nga noonu. Diagne waaw Matar. ana ana kii. Kassy maa ngi nuyu maa ngi nuyu Momar Momar Ciss. Momar Ciss mooy. Euh, mooy le maire de euh, Kër Moussa. ah Kër Moussa. waaw. Mhm. di nuyu adjoint au maire Mame Fatou Mame Fatou Ndiaye. waaw temps yi moom maire yi a ah. waaw bon na nañ ko nañ ko nañ ko. gis nga gis nga gis nga gis nga jaañ. politique. Euh. wax dëgg yàlla surtout affaire commune. Mm. affaire de mbokk la. Mhm. affaire de mbokk la ku ci nekk fa nga dëkk. Mhm. ña la sa ay mbokk ñoo la fal. Mm. donc commune du du du président bokkul ak député. Mhm. commune ci biir gox bi la waa gox bi ñoo la far donc lépp la. Mhm. nañ ko rafetal rek quoi moo moo waaw. nañ ko rafetal te ñu liggéey nag. Mhm. moo xam au pouvoir moo xam ñu ngi fi teg. nañ liggéey. ah ma nga noonu. Barthélémy Dias moom de nee na moom dana dana liggéey ak euh, bi. ndax loolu mooy li war. muy Bart muy Sonko muy euh, Ndoye baan muy ay dara ku ci nekk nag ku nu fi teg. li tax ñu teg la fa. na ko xam d'abord du sa jëmm yow. mais dañ la wóolu. dénk la teg la pour nga pour nga doxal doxolal rek. acca dégg nga wax ñu daal di. am sa si Aba. Aba heure bi day nelaw kan si Ndiaye. Ndiaye. Euh, kan si Khalifa Ndiaye. ah ah. déggante leen démb. nee naa leen nee naa leen démb fii. Euh. am na loo xamante ni dafa weesu mbirum politique yooyu xam nga Sénégal dafa naqaree waxee souvent nga toog. Mhm. nga ne diw def na nangam ñu ne. politique la wala nangam ak nangam te amaana ka ngay wax sa mosuloo ko gis. mais tey boo xoolee par exemple bu fekkee da nga toog nga ne exemple résultat yi magasin def def euh, université. Mhm. mu jëlee ko ci tamit le le ministre Abdoulaye Sow. Mhm. parce que moom moo fa nekkoon après mu mu remplacé ko. Mhm. mais mu def fa liggéey bu mu ci ay. dëgg la loolu boo ko waxee. dañuy tax ñeneen ñi nga xam jox nañ leen ay poste tamit. ñu gën a góorgóorlu ñu gën a góorgóorlu. effectivement comprendre nga. tam dëkkam tam Malicounda tamit wax dëgg yàlla mu ngi fay liggéey. mu ngi fay liggéey liggéey dugub. voilà moom magasin on en profite pour euh, nuyu Khalifa Diagne Koudou ak itam Mansour. doy ah, nekk foofu kud moom tamit ci responsable la foofu kud hmm. waaw waaw bii mooy premier xalaas jaañ xalaas gi nag hmm. dëgg yenn saa yi euh, da ngay xaw découragé quoi waaw ah, parce que souvent di nga xalaas loo xamante ni nit yi dañuy dem ba dañ koy miis ba da nga naan lii kenn dootti ndax kenn hmm. mais bu ëllëgee ñu gën la ñu gën a ñoo dara ndax nañ ma ci jaañ xam nga souvent nga toog rek nit woo la nee na damaa paan ci àll bi yàgg nañ ko wax fii nii. wool ma sama papa nangam ak nangam. dem nañ ba léegi nit ñi dañ koy café sax suñu leen woo ñu leen ANC duñ ko yónnee tellement que xam nañ ni yooyu léegi ay dóor la. Hmm. mais ndaw si dóor lañ ko ci un million. un million waaw. xanaa du déglu xalas. ah loolu laa ko laaj dem mun ma damay déglu xalas mais bu heure daan jotee da ngay daanu. waaw ah, da ngay doon cuune. waaw ayca ñu déglu ko déglu. aja sama wàcc ay vingt et une heures bu fekk trois si laa jël sama téléphone ma woote si numéro yi ma woote numéro bi mu ne ma yaa jàppale ma ngir yàlla bul coupé nga woowal ma sama papa nga wax ko xale taalibe yi réeroon feeñ nañu ñoo ngi bi ñoo na yaa ma ngir yàlla ndax fi mu nekk nii guddi na ma yóbbu man tam comme diggante jullit ak moroomam ma ne ko amul problème jox ma sa numéro papa mu ma numéro papaam ma woo ko yi réeroon feeñ nañ mu ngi garage bi ñoo na xale taal taalibe yi mu ne ma doom jërëjëf yàlla na la yàlla fay xale bi ñu réeree ak léegi ma ko ko yónnee paas jàppale ma ngir yàlla doom bi nga woowal ma ko mu jàppale ma mu yónneel ma ndax xale yi a ma numéro borom boutique bi mu jox ma ko ma woo boutique bi ma ne ko paa bi nee ne xale yi réeroon feeñ nañ pour nga yónneel ko doomam bi paas ak crédit mu ne ñu réeree ak léegi mat na une ñu leen di feebar mënuñu leen gis doom yàlla la yàlla fay wax ma yónnee ko ma ko woo naa sa papa jox ma numéro borom boutique bi naa ne mu ngi lay yónnee paas a ne ma yaay jërëjëf yaay yàlla na la yàlla fay yaay yàlla na la yàlla fay ji lii nga xamante ne moom nga ma defal si laa xëy suba teel ay 9 heures sama téléphone sonné ma wuyu mu nekk paa bi ma jotoon démb si guddi mu ne ma doom na def ma ne ko maa ngi fi mu ne ma est-ce xàmmee nga ma mën a ko déedéet mu ne ma man la ki nga jàppale woon doomam bi démb dama la doon wax ne la xale yeeg si na na ñun si jàmm ak salaam dama lay ñaanal yàlla doom ndax lu baax li nga xamante nga ma ko jàppale gi nga ma jàppale man ci laa lay ñaanal yàlla doom wax ma naka nga tudd ma man la ñaanal yàlla si si lii nga xamante nga ma defal doom naka nga tudd ci laa ko wax sama tur wax ko sama sant mu daal di ma ne doom dama lay jàppale te yàlla rek tax ndax lii nga xamante ne def nga ko dafa nekk loo xamante ne lu jafe la ci jamono léegi jii ma na ko amul problème papa ñoo ko bokk ñun ñëpp ay njaboot lañ si la ma wax ne ma doom ndax mën nga ma amal benn satala ak benn kurus ak benn si jaar dama jàpp ba sel ma ñaanal la si yàlla si laa ko ne ah man de instant yi maa ngi Dakar damay liggéey damay liggéey ndax fii mu nekk nii liggéeyu jaambur laa yore mu ne ma déedéet soo fekkee mën nga ma ko yónnee ma jënd ko fii ma nekk nii ma ne ko waa léegi amul problème danga may wax ñaata lay jar comme ça boo ko laajtee ma mën la ko yónnee mu ne ma waaw si la ma woowaat téléphone mu ne ma laajte naa kii bi satala bi ak kurus bi ak sijaada bi yëpp yëpp mu ngi nekk huit mille cinq cent fekk yore naa dix mille sama wéef ma ne ko léegi amul problème ndax yow sama maam comme diggante maam la ak sët léegi dinaa la yi nga joxal ma ko xale yi àddee si la ma to si ma toogaat ba si kanam sama bi sonné ma doom jàpp naa ba sel ma toog si sijaada laa ñaanal si yàlla léegi doom ndax man nga ma amal foofu benn siwo bu deful dara siwo ndox siwo bu def xotti siwo bu deful dara nga defal ma si ndox defal ma si ñaari mbuusu meew ak doomu guro nga tëj siwo bi te bu ko ma sa tijji ba ma wax la tijji ko ndax man nga ma ko defaral ma ñaanal la si yàlla doom ndax li nga ma defal dafa rëy si man ma ne ko amul problème papa lépp pour man jullit ak moroomam ma jël siwo bi def si ndox ak ñaari mbuusi meew yi tëj ko si laa gëj a xamati fan laa nekkati ñu may laaj xaalis su ma wooye ne ma damay def sarax bi yónnee ma ko ma yónnee ko su ma woowee mu ne ma doom fii mu nekk nii def naa werdi bi ba tasante ak benn rawxaan ba ubbi ci sa buntu wërsëg léegi dañoo war a def sarax temps man daal li gën a tuuti ay cinquante mille lañ ma doon laaj ay cent mille ay soixante quinze mille may may joxe joxe ba amatuma may jël xaalis yi jàmbur yi di leb lu ma leb ma dugal si fi ñu heure bu ñu ma wootee ñu ne ma lépp loo xamante ne wax nañ la ko danga koy def ndax fii mu nekk nii rawxaan yi ñooy wax ak yow di ma envoyé loo ay xaalis xaalisu jàmbur may yónnee di yónnee jaay naa li ma yoroon yépp ma jaay ko lu ma am ak lu ma amul yépp ñu ne ma danga koy def ma dem leb ji ñëw yónnee leen ko fii mu nekk nag dama sonn lool ndax nit ñi ñoo ma taxawu seen xaalis yi te awma loo xam ne mën naa ko fajee soxla ma leen yónnee mat na un million et quelque xaw ma nag ñaata moo si tegu. xalaas. Fass coow laa ngi doon. li problème la la de. problème la xam nga xam nga souvent nit ñi lañuy foog ni benn nit bi moom mooy woote mais lii ay nit yu baree bare la. te il faut que Sénégal ñu xam benn affaire xam nga souvent nit ñi doon naan ay lu ci police wala gendarmerie du ñu fi génn fële. gis nga ñii ni dañuy for quarante jàmbur identifié ci plus téléphone touche yi la ñuy yor. c'est-à-dire nit ñi il faut ñu il faut ñu xam benn affaire ñun xëy ñu fii toog nii di wax nii rek pour la forme wala di wax nii pour bëgg a wax rek. Mhm. d'abord dañuy informer dañuy dénoncer mais dañuy alerter aussi. Mhm. te lii yàgg nañ ci. yàgg nañ wax nañ ko ba sonn wax nañ ko ba sonn. man day man day man day mas nañ ma ko def waaye daanu ma de. ah daanu ma de waa daal daf ma woo ba dara desul lu dul pour pour valider. Mhm. jékki-jékki mel ni yàlla yàllaa taxaw nee ma nee ma Cheikh bul bës. nee <laughs> Diagne. waaw dañuy dem saint ndar gi waaw. man lii en tout cas ku mu jaaxul man jaaxal na. Mhm. dafa am benn xale bu jigéen bu am treize ans. ñu ne dafa nekk ci kër ko affaire famille la d'abord. Mhm. bi ñu fa nekkee yaayu xale bi ak ña ne ci kër ga jubóowuñu. Mhm. d'après li kii di wax. yaaya xale bi di leen menacé neen yéen naa leen tëjlu naa leen tëjlu naa mhm. ba benn moment rek ñu ne xale bi dañ koo violé hmm. Hmm. xale bi di lim ñu ko violé di lim mhm. ba lim ci vingt et un góor ñëpp ci kër gi déedéet ci koñ bi ci koñ bi waaw ah. boole ci nag ñaar ñu jigéen ñu dëkk ci kër gi hmm. ne ñooñ ñoo ko doon màkkaru ñu jàpp ñooñ ñëpp tëj ci kaso mais xanaa nag police nag buy dem bay bay tëj da ci am da ciy am lu ko leer. da ciy am lu ko leer. Mm-hmm. léegi nag problème bi nag mooy mm-hmm. est-ce que effectivement. viol am na am déet. am na est-ce que la yaay ji doon wax dinaa leen tëjlu. menaces yooyu est-ce que vérifié nañu ndax lii xale bi wax ci vingt waxuma la benn góor vingt et góor laa la wax ak ñaari jigéen. Mm-hmm. déglu histoire ba pare. ñun suñu ñaari sœur yoo xam dañ leen tuddoon ci benn cas de viol ak dix-huit góor depuis ñu ngi leen jàllale woon le 8 février 2021 ba 8 février 2022 waxuñu ñu dara boobu ba léegi nanguwuñ leen jugé kenn waxul dara lu jëm ci ñoom ñun dañu jaabante ba sonn fu nekk dem nañu fa dañuy dem ci avocat bi mais duñu am benn réponse tout le temps daf ñuy wax ni ci procureur bi moo nangoogul xool wala juge bi moo nangoogul xool ñun comprendre ñu daal te dafa metti parce que xale yi defuñu dara ay problème mu kër la affaire u jigéen la woon ñoom ñu xuloo ci seen biir ay cousine lañ yaayu xale biñ ne dañ ko violé moo jiwoowul woon ak ñaari sama ñaari affaire ma lay wax comme que jubóowuñu woon te tout le temps def leen daan menacer naan leen naan leen tëjlu naan leen tëjlu mais loolu moo mujj am parce que naan leen tëjlu boobu mooy indi biñ ne doomam dañ ko violé doom ji tuddu plus de ay vingt et un góor ñu dem ba ci biir ku mu tudd ñu jëli ku mu tudd ñu jëli la ba mu tuddaale ci sama ñaari sœur yooyu muy ñaari xale yi di Fatou Mata ak Kumba Samb léegi comme que ñun jubóowuñu woon ak yaayam dañu amoon problème mu tuddaale leen ci ñi ñoom tam bokkoon nañ ci ñi leen doon màkkaroo ak góor yi te alors que c'est pas vrai parce que ñooñu xamuñu dara kenn ki dafa doon sëy bi ñu ko ngéntee ñaareelu doomam amul ñaari weer bi mu fay dugg ak doom ji doom ji léegi mu ngi dox parce que am nañ fa un an ki ci des amagul woon jëkkër moom moo doon togg foofu bu toggee ba pare sangu tëdd néegu yaayam nelaw ba bin koy jël si noonu lañ ko fekkee dañ ko fekk mu togg ba pare raxas ay ndabam dugg néegu yaayam tëdd di nelaw ñu ñëw policier yee ko yow yaay Fatoumata mbay mu ni waaw ñu daal ne ko jugal mu jóg ñu dem dugal ko ci oto bi nii lañ ko yóbboo ci xale bi ni dañ ko violé mu parce moo leen tudd rek ñu la woon rek xale bi tudd leen ci comme ça parce que naa leen tëj naa leen tëj lu boobu moo topp lii problème xale bi ba xale bi tudd ci ñooñu comme si que yaay ji moo ne ko na leen tuddaale pour tëj leen ci loo xam ne defuñu waxuñu yëgul xale bi nee bu daan tëdd góor day ñëw ñuy récupérer xaalis bi di leen ci may ay fukki dërëm ak yooyu c'est pas vrai xale bi yaayam dafa jubóowul ak sama ñaari sœur yooyu loolu moo tax mu am problème bi rek dugalaale leen ci ñoom sax jëleen jëlee kaw mais ñun li ñuy ñaan mooy yéen dañu bëgg ngeen jàppale ñu leen leenu bëgg mooy yéen am ngeen seen baat yéen fi nekkal askan wi su ngeen waxee nit ñi dinañ leen dégg seen baat àgg na suñu baat àggul ngeen dimbali ñu te yàlla rek tax ngeen dimbali ci kaa bi pour gars yi teg ko ci table ji ñun lan lañu bëgg nañ leen juger buñ leen di taxawal ñu bàyyi leen ñu dem ñun bëgg nañ buñ leen di obligé ni leen temps ngeen di amul problème dina nangu ndogal xam ne ndogal la ndax defuñu waxuñu xëy na yàlla moo bindoon lii seen jëm parce que bëgg nañu vraiment la table ñu waxtaan ci ñu wax nu xale yi lan lañ def parce que benn preuve d'ailleurs pour man ñàkk preuve moo tax ñu koy traîner ba heure bi waaw mais dimbali leen ñu lu ngeen ñu mën a dimbali ñu jël foo xam ne ñun buñ fa demee wax dinañ ñu dégg te dinañ ñu ci jàppale dinañ dem wax nan ñu dimbali avocat yi jóg juge yi jóg ñu jóg ñu taxaw jox sunu xale yi parce que defuñu dara dañuy yàq seen avenir kenn ki da doon sëy doomam mu ngi foofu depuis un an ba mu fay dugg liir bu tooy xepp la dañu ngénte yaayam amul sa deux mois ki ci des xamul dara xamul dara. Oh, wax bi ñaar hmm. moo di menaces yi. Hmm. nga xamante ne nee na yaay xale gi. def na ne dinaa leen tëjlu. ak euh, li nga xamante ni moo di vérifier la véracité des choses waaye man li ma si intrigué mooy lim nañ si nee nañu ëpp na ku toll jot na seq ak. lu ko ëpp sax la ñu wax. ëpp na ëpp na vingt une personnes si lu ñu wax. ci xale ba am treize ans. ah mais mais mais mais loolu est ce que mën na ne treize ans. en tout cas yaayu xale bi. Hmm. man am na numéro bu ñu ma joxoon jëm naa cee woote. Hmm. mais jàllul. bu hmm. fekkente ni mi ngi ñuy dégg te ci ok ah. Diagne. damay damay jaale sama benn sama benn tonton. Mhm. bu ñuy wax Cheikh Fall dafa génn àdduna démb. Euh, denc ñu ko dem ci Thiès. yàlla na ko yàlla waaw dama koy jaale di ko jaale sama papa yeeg. suñu waa kër yëpp. 77 150 17 17 ñu daje xalaas ba lundi. jaajëf.

ජමානයට දර්ශනචාරවරයට කල්කිවේ බය කරක් කරක් බම්පාරයකි දෙදකෝ ජිර්දිකෝ වතත් දිකෝ වතත් නිනන්දියත් පාදය භාජතිකෝ වතත් නිනන්දියත් මුදිකෝ වතත් වනකො චචාරය පයි ජනකර කරග පයි mani mani mani lamma waral sa woote bi ci biir pale bi waaw waaw standes waaw standes mani maa ngi lay jégg dama ni lu waral sa woote bi ci biir pale bi lan moo waral woote bi. waaw waaw di waral sama woote mooy. waaw. maa ngi félicité euh, tout le tout le peuple sénégalais. di félicité Sadio Mané Nampalys Mendy. di félicité Ismaïla Sarr Zoli yëpp am nañ jaloore. waaye ana ki woote woon naan bi du dikk. ak ah, ñooñu day seen xalaat rek lan waxoon. <laughs> gaa yi de ya paaka kenn du ko jiitatu mbaram. waaw waaw loolu de dëgg la. <laughs> yàlla noppi na moo tax bisaay faraasu yàlla nit mun koo toogi. mokk billaay wallaay. <laughs> léegi dama am lu ma xalaatoo. waaw lan ci la wax ko. ah. wax ko yow la ñuy déglu. adduna sépp wax ko ci xëj yées nag. lii dafa metti nag man mënuma dëkk nag si lii wax dëgg yàlla nag ah dafa am lu ma bëggoon a wax xalaat ko. Mm-hmm. ni yow déglu de yow laay déglu. ah nga ni man Gaye. déglu. waaw kay man Gaye déglu. waaw. waaw xam nga comme gaynde yi léegi yàlla dogal na ñu ñëpp ay gaynde lañ léegi. léegi pour gaynde googu ñu gën a soxor maanaam gën a ñoŋ gën a ag gën agressif ba ku jàpp gañe la. duñ benn gaynde ca parc an boole nag moom bu ñuy dem ci compétition yeeg lépp nu nu jiital gaynde gi ngir kenn dootu dañ ñeme loolu idée la de. a ah, pour jël gaynde ca parc an boole ko gaynde yi ñuy ànd di dem. waaw waaw waaw xam nga gaynde gaynde lay doon nga Aliou Cissé boo xoolee paxi ba kan sax xam ne gaynde la gànn kay ma nopp yi rek xamal ne gaynde la ñoom Nampalys Mendy Saliou Ciss ci ñu jàpp xam ne kay gaynde la bu ñu leen ñu jiite gaynde suñ qualification bii sax jëm ca ca sax dañ koy gañe ndax gaynde ga yóbbu fii la. <laughs> sa sa xalaat baaxul de. ah. ma ne sa xalaat baaxul baaxul. loolu moom mënuma koo doon su Augustin nekk président fédération nga bëgg ma nekk ko loolu moom déedéet ay idée la li may rek. waaye waxuma ko ngeen nekk président fédération de. ma ne waxumay président fédération dama ni sa xalaat sa xalaat baaxul. Aliou. Eh sa xalaat moo baaxul. nga ni Aliou Cissé ah. Aliou Cissé sax Aliou Cissé kay gàcce gaaraama du tëwoon ñëpp moo ko jël léegi Aliou Cissé nga ni nan ko sa xalaat baaxul. ah. sa xalaat li nga xalaat ci gaynde yi pour nu def ko baaxut. ah kon ñu benn gaynde gu duudo ñi jiital ñaari gaynde waaw doo doot xel la yow kay <laughs> yow kay doo ci def ci la rek dañu ne ñu wax président ni ko allo. ma mani. waaw waaw waaw. Eh, eh, sa kàddu gu mujj lan la sa kàddu gu mujj. sama. kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj. waaw. ñu wax président ni ko. waaw. dama jox ma coté xale yi xale yi neex na noo coté. <laughs> baax jërëjëf votre correspondant na porté attention pour le moment veuillez appeler ultérieurement. waaw léegi coupé naa la coupé naa la coupé <laughs> naa la. Ah, waaw waaw wax ko ko waaw waaw.